soble ñeenti téeméer jàpp juróom saakoob soble fukki junni guléet ñu koy dóor ci réewum Sénégal dina nag mu ngi am ci dëkk bu tedd bi nga xam ne dañoo am kersa sax ngir xam ne ko muy dëkk bi leen di Touba te ñu ko def lu ñenn lu dul yi nga xam ne nii seenu ñàkk yërmande fës na lool ci askan wi bu leen ñu wax ne nguur gi la déedéet lu njig njaaga yéen dong yéenay njàgg ana yërmande ji taxoon ngeen nga day seen néegi bàyyi géntal seen dëkk bàyyi ñëw ci dëkk bu tedd bi di Touba waaye nag yërmande ji ak taw feexu dëkk bi tax na ngeen naagu ba fàtte loolu de bala may sori damay samp ay laaj jëmale ñi nga xam ne nii jëf nañ jëf yu ñaaw ji leen ci dëkk bu bi di Touba taxawaay ci bis bu tedd bile ndax ñii di leen yëkkati seen ab dërëm tabal ko ci xeex mbënn mi nga xam ne ni sonal na ñenn ci askanu Touba ndax ñii di leen yëkkati seen ñaari téeméer tabal ko ci Touba ci kanam ndax ñii di yëkkati seen ab dërëm tabal ko ci keesu mairie ndax ñi di leen yëkkati seen ab dërëm tabal ko ci fexe ba Touba am ndox mu neex ndax yéen a ngi xool seen diggante ak seen borom ci li ngeen di def askan wi rawatina néew di doole yi waaye nag yàlla gëmmut ne lewut te ku mën a àttal ñenn ci nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum jënd ak jaay duñ xaar lu bis lu tànc askan wi jaay leen lu seer kon nag jot na ñu daal di koy jébaane jaaraama service du commerce di bànqaas bi saytu lépp lu jëm ci jënd ak jaay ci réewum Sénégal seen taxawaay rafet na lool ci mbir mi lee képp koo xam ne ni am nga ci responsabilité daal ci tàbbal ba mbir mi la daal di fiy jóge rawatina nag ci bisub màggal gu mag gi ñu dëgmal muy 18 safar buñ ci waxut kat waxuma la soble waaye lépp lu jëm ci li nga xam ne ni askan wi moo koy daal di jëfandikoo danañ ko yokk ba loxo dootu ko mën a laal te ci fàttali ñi xam ne nii tey ñoom lañ ci ci commerçant gis ma nga yëkkati loxoom di fa gëm danam te naan am murit la ba am fitu sax di jateex saadeex waaye nag jàpp leen ni jëf ji waroon na lool ak jëfi murit saadeex